double moteur su la jegee yow bi nga jógee si Mame Balla ba tey dafa mel ni ñemetoo jël xale yi man mag laa gis nga jàpp nuggutu rek nu mu demee noonu yaa ngi jóge si naaru sogaas ñuy waxati nga ñëw jël fëga la dèjà kon da ngaa tege ne xale yi ñëw si mag ñi nu mu demee noonu. waaw xam nga ñun làmb moo ñuy boole làmb moo ñuy boole suñuy grand parce que làmb day toll foo xamante ne maanaam dama koy wax chaque jour ñun dañuy sant yàlla rek lii li li yàlla may tamit yombul yaa ngi dégg ñun ñu am may suñu borom la ñooñu noonu ngay wax tey boo fi deful dara tam du la jël xam nga la loolu kese la làmb loolu kese la parce que tey jii mbër yooyu noonu ñuy bëri noonu ñoom tey ñoom dafa am am ne ala a bëreel moom la ñuy yi ci kaw du ñu mooy loxo rek. est-ce jàppani foofu daa gën a moo tax nga dem jëli fëgala fëgala mi nga xam ne bu daanoo tey suba ñu daan ko ginnaaw suba mu daanaan nga dem jëli ko est-ce que gënta nooy bi nga jógee ci Mame ba tey ni songu xale yi daal man loolu jaaxal na ma trop te Pikine des nay xale lan moom mooy boole ak ñoom dafa nekk loo xam dafa toll foo ne fi yow mbër mi mën nga bëgg combat bi supporter du bëgg ñëpp bëgg promoteur duñ ko bëgg promoteur ñooy xool combat yi ñu bëgg taxawal yooyu lañuy taxawal il faut gars yi bàyyi promoteur yi combat yi ñu bëgg a taxawal yooyu la ñuy taxawal diw ak diw combat la chaque jour nga gis ko ci stade wala nga dégg ko ci lu tax mu taxaw loolu rek mooy l'essentiel bi promoteur yi ñoo seen xaalis ñoom ñooy tëgg ñooy xool kon maa yi leen arrange ñu taxawal ko loolu kese la. bëgg naa xam làmb yi kan ak kan nga fi bàyyi kan kan nga dul bëreel. non man waa Fass laa dul bëree ak waa Dakar Plateau bi fii diam. Eh, da nga bëree ak Wouly 2. non la wax Dakar Plateau bi fii kay waa Bawol ak waa Fass laa dul bëreel. tax ma laaj da tuddutoon waa Bawol moo tax ma laaj la loolu waye suñu gisé li gëna metti li gëna a amateur yi dama ko gis esat daf mel ni daaw la nga ñëw taxaw yaag soq ngeen taxaw di waxtaan lañu ñu mu métti amateur yi trop ndax yéen ñaar bu ngeen taxaw ñëpp dañu combat bi da wara neex ñu ñëw xam nga ku def maram ji xarit gis na nga lëngu ngeen taxaw di waxtaan yéen ñaar mu metti nit ñi ñu dama nonu wa lool da dinaa leral ben leral bu ndaw rek moy sama digënd ak soq ak ñom jëlli di ci profité wal di ci nuyu grand ji bu baaxa baax seen nijaay lolu avant may beure arène maa ngi bëri mbabat boobu duggaguma sax ci arène boobu ñoom ñu si làmb ji di toj di bëree man bëreeguma sax arène sama premier combat arène sama benn grand moo nekk ak seen benn grand jibi mooy seen nijaay yaa ngi dégg moo ma jël yóbbu ma si ñoom présenté ma pour bi may doog dugg si arène pour mu jàpp si jàppale ma kooku avant ma bëre moo ma jël yóbbu ma ba ci soq ak jarli présenté ma ne man ñii sax jaruma leen bi ndax xam nga baax mais samay jarwaale maa seen yaay ñoom bokkoon ndey ak baay yaa ngi dégg loolu moo andi suñu relation ñu bari te ñu bëri xamuñ boobu bëreeguma sax aren may leeral nag ci côté boobu noonu loolu moo loolu moo gën a tax maanaam mu demee noonu mais xam nga ñu xamul ñoo nekk fii di wax wala di expliquer. mais baa baa xam nga ne metti na amateur yi trop trop trop sa diggante ak soq addinaa ko bëgg Pikine ñëpp a koy waxtaanee. waaw déggoo li ma la xanaa xam nga débat boobu close nañ ci na que naa la wax naa la cause bi tax xam nga débat moom bu bu ma wax la cause bi tax re pour man jaratul ñu ci sori làmb daa am ñooy bëreel ak ñoo dul bëreel yow li gis. mbër yëpp la loolu du man kese mbër boo gis si arène bi am na ñu muy bëreel am na ñu mu dul bëreel am na ñoo xamante ne tey jii ñoom duñu bëreeg ñoom te ñooñ ñu ko tegoon làmb ju neex lay doon te duñu bëreeg ñoom làmb moo demee noonu làmb moo demee noonu de loolu si mbër yëpp la nag du man kese de mbër yëpp laa la wax roi des arènes ba ci gën a ci gën a ndaw boo demee ku ci nekk am nga mbër yoo xamante ne doo bëreeg ñoom kon bu ñu jógee ci soq mën nañ laa laaj kan moo nekk sa kanam ko xaay ne yàgg moom combat bu neex la kan nga ci xalaat. waaw mooy li ma la rek man ñi ma war a bëreel moo man ñi ma war a xam nañ leen ñu ngi ci kaw léegi nag doo ma fi nekk di laaj benn mbër wala may wax benn la wala affaire xam nga say naa tàngoor yoo xam na lu bopp attan ba na ñi nga war a bëreel xam nga leen li ma mës ñaan rek. mooy li ma la wax rek xam nga tey jii benn affaire dafa am xam nga mbëri tey jii koo laaj wala dara mën na jàpp ne dala raw moo tax nga koy laaj wala dara te fekk loolu xam nga ñun tey jii nii promoteur kuñ ko promoteur bu ñu wax ni kii lañ bëgg a bëri dina loolu rek moo am solo. la joxee koom si la làmb la ñun làmb lañ fi nekkal rek. waaw làmb lañ fi nekkal. pare pare nga. la ma làmb lañ fi nekkal képp koo xamante ne tey jii nii amateur yi xam nañ ni làmb la ñu boole ñu pare nañ bu bëre loolu rek mooy l'essentiel bi. on dal su ma la déggee li nga wax moy Pikine soq nga farum bëreel mais à part soq mo mën nga bëre ñu dess ñëpp kon baax na loolu daal laa dégg say wax nga ne ma Pikine do bëre ak soq loolu bëggoon naa mu leer ci bop nit ñi ndax ñu ko laaj dafa bëri Double Moteur ak soq lan mo tax ñom ñaar gis na leen stade ñu ñëw lëngante di waxtaan mu metti nit ñi trop ndax ya ñaar da nga ne tolo tay tolo ma sha allah tolo ay victoire tolo lepp ñom ñu yéen a ji trop ngeen bëri waye comme nee nga leral nga ci lu bëri ñu ci contane waye waaye Moteur bu ñu jógee foofu it bëggoon nañu xam Double Moteur nu mu dundee gaay mi toog supporters yi toog. waaw fii mooy loolu yaa salaam bi rek fii moom mooy loolu xam nga fii moom ëttu Baay Faal la moom gaay yi ñëpp benn lañ moom mooy loolu noonu fii doo xàmmee supporter ak mbër doo xàmmee supporter ak joueur parce que ñun ñëpp ñooy loolu noonu ñooy ñooy nekk chaque jour ñooy ceene xam nga fii moom ñii nga fi gis nag ni ni mu demee nii rek noonu la demee chaque jour la action bi mooy daw moo tax supporter li ñuy bëri bëri. mën naa ne man sama supporter majeure partie bi mën naa jaar seen tour ku ci nekk mën naa jaar sa tour parce que mën ñoom ñooy nekk chaque jour bés bu yàlla sax ñooy defandoo lépp li ñuy bëri bëri laa la benn wàll gi mën naa jaar seen tour ak seen sant. ba tey ci supporter yooyu la ñuy gis la des ndax nee nañ bii passé yaa ngi bëri arène nationale bi mais gars yi ne li ñu doon gis rëbës ba tey dafa des quoi dafa mel ni gars yi ne leen fii rek nga moom stade bi mais fee aayoo fa metti na gars yi trop promoteur bi sax dégg naa muy wax loolu. ne double la dinañ a bàyyi xel waaye li mu gis bii passé ak bii passé dafa xaw a wuute est-ce que li mu doon dox dem mu indi problème bi waaw loolu moom jarul wax sax Iba Mar ku ne xam ne Iba Mar ak arène nationale mënul yem yaa ngi léegi mu ngi mel ni tey jii nga ne Modou Lo euh, nga ne Modou Lo tey li muy li muy andi euh, amitié rek li mu doon yóbbu Demba Diop mënul yem noonu la demee rek tey jii nii comprendre nga xool boo Niang li mu doon yóbbu Demba Diop ak li mu andi ak li mu andi arène nationale bi passé bokkul lam moo demee noonu rek tey nii fi la gën a jege moom à tout moment te stade bi moo ñu gën a jege bokkul ak Pikine Pikine benn sori na xam nga te danger yi ci nekk tam dafa bëri parce que insécurité bi dafa bëri côté boobu noonu ba nga xam ne tey jii nii ñu bëree bëree bëri xam nga après seen doom yi di dem xam yooyu noonu ba pare tamit après dañuy am problème transport fii nii parce que oto bu la yóbbu aller du la nangu yóbbu retour yooyu mooy gën a